assalamualaikum mbooloo mi maa ngi nuyu ñep wa su ma nuyoo da leen ma fay asalaamaaleykum mbooloo mi maaleykum salaam xanaa da ngeen a sonn wax len waaw da ngeen a sonn non non sonu ñu non bu moo ñu fi yagal léegi président bu Bougane depuis 5 heures dañu ñëwoon pour voter les ñëw bu ñu meetingee and ak yow Karabane mais comme que état bi daa gas mbeddu Médina yi ba oto tali yi baaxatul caravane guddi gi ñun boobu rek koy moytu ndax daa wóorul léegi nag dañ laa namoon nga ñu ne dégg sa kàddu booba léegi nag boo ñu belelee bés bi tey pour wax ak waa Ndakaaru moo tax du ma ci kàddu gi ndax yow lañu ñu gën a namm ndax chaque jour gis dinaa leen nuyu bàyyi na ko waxtaan ak waa Ndakaaru ak waa Sénégal buñ ci paree nag di yéeg sa oto ñu gunge la ba maanaam kan kan ñu jaar yoonu kër Paa Ngiraan jël tali bu ndaw bi ba mu doore bi parce que Medina li ko lebal foog ngi fay la ko. tàccu leen ma bugal ngay dali. mané wa mané ma kat yi ak mbib kat yi ñaan na len ñu bayyi ba ma jox len ordre rek ñu mbib waaw may leen ma lolou rek wax dafa guddi xam nga jigéen ñi dañuy taa dañuy taaji leer. te tamit am na yàgg yoo xam ne ni waruma leen ko ñemee yàggloo balaa borom kër gi mel moo tax ñu may ma rek man gaawal li may njëkk a def mooy gërëm waa quartier bi ñu teeru tey imam ndaw ak délégation jàkka ji ñëw joxe ñaan ñu ngi leen di gërëm di gërëm xale yi fi yëkkati seen kàddu ñoom ñëpp yaakaar naa Chimère kër Gueye wàllu yu Pape Demba Soumaré Fat Dieng Fat Soumaré Aram Diop Victorine Tampro soxna Khady Dione Adama Adi Soumaré Pam Maguette Gueye maa ngi koy gërëm tamit moo fi toogal PDS mook Aram Ndiaye Gueye Aram Ndiaye bu jekkoo maa ngi koy gërëm tamit nday Ami njaay bu APR mu ngi fi ay Touré Mamadou madame Thiam première adjointe au maire merci madame Thiam taxawaay bi rafet na. Adja Ndeye Seyna Wandoor sama jigéen tamit maa ngi koy nuyu. ñoxor Diallo ñooñoo. ak Mamadou Diouf maa ngi leen di nuyu bu baax Ousmane Fall maman Assou Fall ak Victorine merci beaucoup ci taxawaay bi. Wuli Diatta jërëjëf Ibrahima Ndiaye ah waaw lëndëm na am na ñu mënul gis ah Ndiaye bi gis naa ko léegi baax na waaw di gërëm tamit bàjjenu gox yëpp Balla gis naa la ah waaw bàjjenu gox yi nuyu naa leen ñoom Fatou Ngom ak maa gis ñëpp wante képp Marème Diallo. képp ku fi toog Ngate képp ku fi toog nuyu naa la képp ku jóge ci délégation nuyu naa la mouvement yi fi daje yëpp nuyu naa leen wax ji nag lu bari waa Njaacaar seen meeting bi neex na ala dawme na Victorine yow élule ma dénkoon supervision bi taxawaay bi rafet na waaye cellule nouvelle vision yi ci liggéey maa ngi leen di gërëm ñi aram jóg aram kontaan naa nit ku baax nga aram ku mën nga aram vraiment jigéen ju baax nga vraiment bi nga jàppee ba léegi gis nañu vraiment yaa ngi taxaw aram jërëjëf aram kontaan naa bu baax merci beaucoup aram temps bi moo xam waaye li ma bëgg wax ci yow ëpp na lii te naa am occasion ma ko waxee Fatou Soumaré jërëjëf maa ngi gërëm Fatou Soumaré bu baax a baax tamit Dieynaba Yène délégué de quartier jërëjëf ak Mansour Diop El Hadj Ndiaye jërëjëf Fatou Ngom ñoom ñëpp nuyu naa leen ak maire Suuxa ak waa koñ bi jërë ngeen jëf yéen ñëpp présidente nouvelle vision yi bàyyiwuma kenn jërë ngeen jëf seen taxawaay rafet na seen mobilisation rafet na kontaan naa ci yéen bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf nouvelle vision bi yëpp bàyyiwuma kenn kontaan naa bu baax a baax di gërëm femme socialiste yëpp tamit di wax ni jotaayu tey bi président Bougane coalition yëpp ñu ngi fi takku wàllu Seydou Gueye le ministre moo ko jiite ak ñoom Pam Maguette ak ñoom Aram Ndiaye Dieye bu PDS ñu ngi toog euh, bu ñu ñëwee ci sàmm sa kàddu Awa Diène honorable député bu PUR mu ngi nii toog muy jàmbaar loolu nag bés bu ne mu ngi VAD awa aw sa fay jërëjëf waa PUR suñu bàyyi sëñ Moustapha si xam nga sëriñ Moustapha moom ku mu ñëw ci rek mooy yàlla nar na laa dimbali moo tax yàlla na ko fi yàlla yàggal te may wér muy sunu sak sëriñ Moustapha si Moussa Gueye bi nga xam ni moo fi nekkal taxawu Sénégal tamit mu ngi toog Moussa jërëjëf gis nañu taxawaay bi nga nuyu ñu waa taxawu yépp bi loolu weesoo tamit waa jàmm ak njëriñ tamit ñu ngi fii ndax man fa donc ñoom ñëpp ñu ngi fi Samba Kamara jërëjëf ma leen di fàttali nag ñu déglu jarul tàcc li tax Bougane Gueye Dany man ma sëkk jëf te fàtte xaju fi jëmm ji Bougane Gueye Dany daf ñoo ji teraanga jëmm ji Bougane Gueye Dany Médina mënu koo fàtte man ñi ma tollool génération te ànd ak ñoom di politique mënuñoo gërëm lu doy Bougane Gueye Dany dama ni la tey nag nit ki mën ngaa jekk fàtte démb waaye man loolu ñaanuma mu dal ma dafa amoon ay jamono wala ñu ko fàttalikoo ñu nekkoon ci ay xat-xat mu metti ki suñu ku ñu ku ñu ku ñu keral Bougane Gueye Dany ñëw keral ñu ànd ñun parce que tey bu leen neexee ma fëgg sama dënd ngeen fëgg seen dënd yéen adjoint maire yi Seydou damay fàttali rek wante tey képp ku jàlloon suñu liste conseiller gëm sa bopp la ba ci man maire gëm sa bopp laa parce que ci liste gëm sa bopp laa falu loolu dafay baax ñu koy fàttali tey Médina gëm sa bopp bu ànd ak Médina ci xol ñoo àndoon ñu jël gëm sa bopp bugaan def ci alalam def ci jotam fan la Bougane Gueye ànd la ñun ci Médina ñëw na Guy Mariama Laye ñëw na fii fekk nañu Gibraltar dem nañu sax ba ñu agressé sama kër mu bàyyi la muy def ñëw taxaw Bougane Gueye Dany guddi ko jot mu jël alalam jox ma ni ma def ci parce que Médina gëm sa bopp da ko war a gañe kon tey àdduna warul neex ba ñu sëkk jëf Bougane amna ñu reconnaissance yo motax bi nga nekké ci xat-xat ñun wa medina amon nañu lañu nakari lool ñun wa medina dañu tàmm bu la jaune ba mom lañu continuer di sol ba biñuy liggéey sax ci vacances bu la jaune bobu dañu dem ba min suñu yaram yi té yalla waxul kenn dara dé yalla dal moy yalla waxul kenn dara ndax li ëlëk yalla xam ndax ñu bare ñu ànd tey te séntuwuñu ko woon juroom wër ci gannaaw yalla mo xam mais nag li ma neex ci yow ba ñu sawar laa xaar boobu ba nëgë mooy am na ñu bari ñu am alal mënoon koo def ci réew mi dem nëbbu ko bitim réew wala di ko lekk ak seen famille mais ku jël plus de sept cent personnes plus laa wax ñu nekk ay chef de famille nga yor ñooñu yor chef de famille yooyu sénégalais bu modèle te ce que nous retenons de vous surtout mooy bi nga amee doole Médina nga njëkk a xalaat ubbi say société maanaam seen TV ak Zik fii la sosoo fii ci Médina muy sagu Médina kon Bougane encore merci Bougane Gueye sunu mag Seydou ak Awa ñoom ñëpp wax nañu ba pare doon naa bëgg nga fekk lañuy wax am na solo tey il fallait ma rendre ko hommage ndax boobu léegi li ñu gisee bëriwul ci ay xat-xat la gisee mais kaddu gi ma jël kaddu waa naa gépp la seetaanoo ñu benn yoon tàccu leen ma Bougane Gueye Dany kaso ragal la kese moo tax mu tëj la kaso xam nga yow say xeetu tibu tànk day fa ànd ak tàngooru métti métti parce que tibu tànk boole ci xal ngay def ndaxte boo wàññeekoo ci xal ngay dëkk wala ci pont moo tax mu ne comme que sonn naa naa ko dina te xam nga ci leen de même bu doon ñetti waxtu lañ leen tëj ñoom nooyi nañu tuuti da sa dakkale da ngaa sonalaat wante nag ñoom xam nañu fi ñu jaar ba falu ku fa jaar ba falu la ñuy bañ gannaaw loolu gërëmaat naa ñëpp santaat ñëpp di wax ni bu subaa ngaraaf ñu jëm 16 heures may ñaan xale yi nag bugguma ñu bàyyi ba kilifa yi di toog ñuy dugg joxe naa ordre bu ñu xasee ba toogati mouvement bu ñëw du dugg parce que li rafet mooy ngeen teeru seen maire teeri seen candidat mais ngeen bàyyi ba kilifa yëpp toog ngeen ñëw di annuler di di di di taxawal meeting bi rafetul bis ni ki tey mayetuma ko benn mouvement bu kenn dajee fenn li ma bëgg mooy fu ñu war a dem na fa jiitu mag ñi jour noonu lay def jiitu leen fa mag ñi ngeen accueillir leen tàccu leen mais mag ñi dem ba meeting bi commencé ñu tagg meeting bi di leen dugal loolu jeex na fi tey donc bis ni tey xale yëpp ñaan naa leen cinq heures fu mu leen fekk da leen fekk fi meeting bi am jubal leen fi meeting bi am la dinañu fa dem gannaaw suba nag pincumti leen la samedi yi may wax damaa bëgg buggaan dégg ko pour jour bu mu ci libre bu ñëwee ñu def ko meeting mu 40 minutes pour mën a caravane parce que foog mu caravane nag parce que gars yi namoon nañ ko foog waa Medina gis ko samedi samedi meeting guy meeting Kusum euh, la Seydou Gueye moo ñu woo ak Moussa Gueye ak Aïda Touré ñoom daa faal yooyu meeting Kusum la Pape si ko préparé dimanche ah meeting u Bala li bëgg yaay dimanche nag awa jeen lébu moo ay bundu kër aram jeen kon nag amazone yi tey def ngeen ba mu baax teeru ngeen Lyon yi teeru waa Jolem teeru Bamba fépp ah teeru Lyon rose yi tamit rose yi yéen a gën a jege sanca ba kon na nekk seen mbiru bokk daba yow tamit ak sa group ak waa cëriñ gi ak waa ñi awa jeen yori ñëpp surtout waa PUR donc yéen ñu ngi leen di xaar sanca ba dimanche dimanche mooy sancaba kusum nag mouvement bu nekk dama lay jox fi nga gën a jege waa vacances citoyennes yi waa vacances citoyennes yi màgget nañ leen mobiliser ñoom ñu mel ni kon ñoom ñoo ñuy teeru kusum bu ko defee comme que Ramatulaay présidente Lyon yi moom Guy Mariama la dëkk meetingu mercredi Guy Mariama mooy suñu meeting de clôture am nañu quatre journées de caravane yu méttee méttee méttee yu ñu ko def li ma sas buggaan rek mooy camion sunum bi ndaxte li ñu bëgg a wax moom xajul ci camion bu ndaw donc dina seet jour bu camion bu libre mu abal ñu ko pour waa Médina dégg ñu jur bu mu ñu jox baax na non temps yi mënoo ko mënoo ko laaj xaalis daan laaj waaye dañ koo xaw a sonal fële quoi te xam nga bis bu mu toog liggéeyul rek ay millions yu yàqu la wax ci nag maa ngi dugg ci politique ci wax ci dul bëri Bougane moom la ñu mu wax man damay koy introduire mais ñaari kàddu laa leen di wax waa Médina ku nekk ci ñun ak ñi may dégg ci kaw terrasse yi ak ñi may dégg ci seen néeg ku nekk ci ñun am nga parti boo bokk ku nekk ci ñun am nga leader boo topp wante liste bi kii wax ci gannaaw bu ñu mënee may rek wante li nga xam ni moo ci am solo mooy parti boo mën ci bokk leader boo mën ci am soo votewul listu sàmm sa kàddu sa mbëggeel ci Médina des na dama ne liste bi doomu Médina bu ko votewul sa mbëggeel ci Médina des na dina jaaxal li ma wax ñenn ñi wante su ma ko firee di ngeen comprendre fi may waxe quarante list un wante liste yëpp liste bii rek moo jël ay doomu Médina def leen ci pour ñu dem assemblée. man tey su ma bokkoon beneen parti gis ni benn doo su ma votalee parti boobu doomu Médina du dem assemblée damay seet fi doomu Médina nekk ma voteel ko ndax ëllëg Médina am kàddu assemblée loolu moo tax ku nekk bul xool parti bi nga bokk ku nekk bul xool leader bi wax ci yow. xoolal intérêt Médina xoolal ni list bi kese moo jël ñetti doomu Médina muy man Ngouda Diène ak Nafi jàlloo pour ñu dem assemblée te assemblée boobu nag jot nañu dem ci Bougane boo gisee Seydou Awa Diène ak Moussa dinañ ma seede soo gisee ñu yàkkamtee dem assemblée nationale bi ci guddi ñëw naa fi mais méttu Médina bu baax rek bu ñu mën a teg tribune meeting sax jafe nañu léegi état bi daa yàq suñu mbedd yëpp ñun mairie bi dañoo góorgóorlu woon defar mbedd Médina yi ba mu desoon ñett état bi ñëw nii day yokk tuyaux yi ndax canalisation bi dafa xam ndax compétence am la ni am na 6 milliards mais état bi ñoo rawi janax mbedd ya ñu defaroon yëpp état bi yàq na ko man damaa wax a wax a wax damay am kersa taxi yi nangootuñu fee ñëw. oto mbalit yi da koy yërëm buy jël mbalit mi day wéngalu boo amee nit ku baax doo sabar mu ñëw ndax bala muy dugg otoom am bulon yi commencé yàqu suñu mbedd yëpp yàq nañ ko léegi man en tant que maire fëgg naa fu nekk sottiwul moo tax ma jàpp ni bis bu ma demee assemblée ministre boobu yor loolu moom bis buy ñëw bu ko yeboo diwu saafara ni bu yéexee sax ma duma ko ah. donc moo tax ma ni leen tey jii bu dee xale yi Médina yi mënuñoo am liggéey bu dee luyaas bi mu ngi di cher bu dee bi mu ngi continuer di métti bu dee société d'État yi ñu ngi continuer di dàq nit ñi. tey boo demee port ña ngay dàq tey boo demee lonage ña ngay dàq tey foo dem ña ngay dàq ña ngay wàññi tey bu ñu demee ba entreprise yi ay Auchan ak yeneen entreprise yëpp di wàññi personnel bi. bu yàggee ndóol gu métti dab ñu te ñëpp xam nañu ni ah Awa Diame gisuma la woon nuyu naa la kon pareel meeting bi kon ñëpp xam nañu ni élection yi buy jàll ñuy yokk courant bi di yokk carburant bi élection yi moo tere yokk ñu ko de ñun waa Médina est-ce que war nañoo ñàkk fayda ñu ñëw doon ñu ay xeer gàntu faal ba rey ko ñooñu ñooy naan tey ñu voté leen pour lan ñun ñoo bañ. am na ay apprenti politiciens yi nag yu nekk ci koñ yu ndaw yi ñoom mosuñoo tekki dara Médina te dama leen di laaj rek ñoom ñi fi naan bu leen voté ñuy voté leen ñu ku nekk ci ñoom dama lay laaj loo deful Médina dara dama ni la fii di njàccaar la waaw ana xale yi mairie bi da ñuy liggéey na yëkkat seen loxo ñii ñëpp mairie bi la ñuy liggéey xam ngeen nii ndegam maire la doon jël 503 personnes bés bu ñu gënee am doole dinañu gën a dugg ci jigéen ñi ak ci xale yi tey xale yu góor yi buggaan bañ ñoo takk jabar xale yu góor yi bañ ñoo takk jabar dañoo yorul luñ takkee jabar ndax jabar du may bu njëkk kese ak ay cadeau jabar da koy dëkkal jabar da nga koy dundal xale yi bu ñu demee ba manqué seen yaay continuer di leen jox ndékki seen papa continué di leen jox añ facture courant bu ñëwee ñu doublé ko woyofal moom day tàkk day xonq rek léegi léegi nga ne ci kër gi di xool sa papa di xool yaay ci mënoo ci dara du gën a métti loolu amul Médina nag damaa gisul fu ñu dimbalee damaa gisul benn projet bu ñu indi Médina pour dimbali ñu feeraade président Macky Sall moo ko waxoon ñu dimbale ñu ah Barthélemy Dias de ci mairie moo ñu defar rue 22 rue 27 ak rue 25 yeggul mais boo ñu xoolee travaux yi ñu ngi koy yëggalee waaye la ca des nag ñun ñoo bëgg a dem a xeexal suñu bopp taxaw assemblée ministre bu ñëw ñu yem la fu la yàlla yemal ñu la ani wàllu waa Médina damaa bëgg ministre bu ñëw assemblée ñun la ani wàll waa Médina ani wàll xale yi Médina yi jigéenu Médina yi mais nag bu fekkee ni juum nga ba beneen liste. Médina naru fa am député tey loolooyu problème bi Pastef lay wax Pastef lay wax Ousmane Sonko jëlul benn doomu midina ci liste ki ñu leen di wax ab suppléante boo xam ne nii bu àdduna tukki woon ñetti yoon fa mu positionné wu du mu sa falu foofu la ñuy investir nit ab suppléante boo xam ne nii bu àdduna tukki woon ñetti yoon du mu sa dabe bay dugg loolu lañ leen bëgg a naxee Pastef respecté wul waa Médina ndax jëlul kenn ci doomu Médina pour mu war a dem assemblée nationale kon yéen waa Njaacaar bu leen xool dëkkandoo ay wax yu neex ak ay xaalis bu ñuy séddale déedéet buñ ñu nawloo woon dañuy jël ay doomu Médina Pastef yóbbu leen ñu représenté ñu kon liste bi nga xam ni mooy sàmm sa kàddu moo respecté Médina sàmm sa kàddu moo cëral Médina sàmm sa kàddu gis problème mu Médina ni naa bàyyi doomu Médina yi dem xeexal ko seen bopp te ku ñu xam dëggantaan xam ni gaynde lañu bis tak ñu taxawee assemblée lépp doon dëgg wasalaam. jërëjëf ki ñuy jox oh ho, gi ki yëngal jamono ki tere nelaw Sonko mooy Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany naa tout le monde est là Seydou monsieur le ministre ñu bàyyi nga nuyu bu baax. loolu cër la. mais Bougane ku nuyu parce que moom xam na man xam na cëy lool mais dalal ak jàmm ci sa biir kër nekk ak say mbokk say xarit say compagnon de combat. Parce que les Sénégalais doivent découvrir moi suis un véritable combattant. Mais le premier combat que tu as mené, c'est le combat de la dignité. Menal sa bob. fonk sa bopp gëm sa bopp wala ko lépp nekk ci saayu gëm yàlla wax nga kàddu bu am solo keroog bu bëgg ñu ko bu baax xam li muy tekki nee toog ci kaso bi bu fekkoonte ni wóor na ne ni boo ko defee ba mu ay weer coalition bi gañe jaral na la ko loolu la wax kooku nag kàddu góor kon nag ñu ngay jox kàddu Bamba wax na seen diggante mais wax na lu ko ëpp solo sa digganteeg Medina sa digganteeg senegal kon nag dañ lay bàyyi kàddu bi te dellu si ci wax li nga yéene Medina li nga gisee mbir mi ak li nga bëggal Sénégal. woote kon képp kuy jeune képp kuy femme ci Sénégal képp kuy responsable ci Sénégal ndax moom dafa jàpp ne moo njaboote ñëpp ndax dafa bëggal ñëpp jàmm bugaan ñu ngi lay nawloo xam nga lu ñu lay nawloo da nga gëm sa bopp waaye Serigne Moustapha nee na da xam sa bopp ah. wax ni mësuta yomb ci ku bëgg jaar ci fi yonent yi jaaroon mësuta yomb ci ku bëgg jaar ci fi nit ñu baax ñu jaaroon mësuta yomb ci ku bëgg Sénégal jëm ca kanam ndax Sénégal bu réew mu ndaw surtout li fi feeñ te li fi feeñ tax na nag tey appétit politique yi bari na waaye nag ñi nga xam ne am nañu endurance ñi nga xam ne ils vont résister pour exister ñi nga xam ne dañoo war a taxaw pour Sénégal jëm ci kanam dañuy mel ni yow ñu ngi lay nawloo monsieur jaajëf ci turu taxawu Dakar day dalal Bougane taxawu Sénégal asalaamaaleykum président Bougane ñu ngi lay jox nuyoo président Khalifa Sall ak sa frère Barthélémy Diaz ndax keroog ñu ngi woon ñun ñëpp Tamba ànd ceeg yow ci tiis boobu muy bànneex nag ndax ndam la ak li nga woote muy gëm sa bopp moom nga fa woon kon ni ngi lay wax dalalal jàmm ci biir Médina bi monsieur le maire Cheikh Bamba Fall wax mënuñu teg lu ëpp loolu ci yëg-yëg ci biir Médina yàlla na la yàlla jàppale ci combat bi ñu jëm yàlla defal ñu ci ndam ndam lu kawe suñu njort 시작합니다. 와호. السلام عليكم وعليكم السلام احتاجوا لنا بوغان جوغ لنا تخاو من يبتو كهان تخاو جوغ جوغ جوغ امبياس امبياس من يبتو تخاو كدابلو merci. merci à Médina. merci à monsieur le maire. merci à la jeunesse de Médina. mais merci également à monsieur le ministre Seydou Gueye.

suma frère yi nga xamné ñom la coalition Samassa Kadou à travers le président Khalifa Ababakar Sall may sante bu Moussa Gueye mi nga xamné moko mais surtout le travail remarquable bi nga xamné le député maire de la ville de Dakar Barthélémy Diaz mu mangi sante bu baax yéen ñi ma dalal parce que fi ñu ma dalal tay ji kaddu yi ma dégg monsieur le maire wax ko suma xel dal na ci te bu ma suma ginnaaw gis imam bi teewe jotaay bi day tekki tout simplement que combat bi ngeen di def monsieur le maire c'est un combat noble je vous encourage et je vous félicite wa Medina Medina ak Bougane monsieur le maire d'une d'une ko c'est une longue histoire ñu bari dañuy bàyyi xel ci né Bougane Sen TV ak Zik FM Medina la tambalé waaw c'est

bàkku làmbaay falaa dem kolan takale ay bureau jënd ko tambali sama entreprise Kay jii pa ba ma jaayoon bureau yi mu ngi fii ci salle des ventes ba muy paa baabu maa ngi koy nuyu au passage c'est juste pour dire à vous la jeunesse que lii tax nit que lii tax nit mun a teral ay way juram nekkul ci loxo benn doomu aadama ci seen loxo yéen la nekk dama bëgg ngeen xam ne am nañu nax sénégalais yi ba ñu jox leen réew mi am nañu yëkkati ay kàddu di fen sénégalais am nañu yëkkati ay kàddu di manipuler sénégalais am nañu yëkkati ay kàddu di nax sénégalais ba tey jii ñu jox leen réew mi mais ku fen far billaay fen dana tax doo puus mooy li ma leen wax démb rek mun ngeen a wax fen ba ñu jox leen réew mi waaye li leen di të mooy fen ba feesal biir yi fen nañoo fen a fen a fen a fen a fen ba ne waa ñu jël réew mi jox leen Nous continuer di faire le gori, di continuer di xas gor di continuer di teg ay kàddu yu ñaaw ci gor yi moo tax bërki démb bi ñu ma waxee ma message ne le ministre des finances notre frère Moustapha Ba est na àdduna Yalla, xam na ne ci sama yek yek dama ne gatché dom la doon bañ gor parce que man ku ne xam na ne anduma won ak Macky Sall mais ci biir ñi ànd ak Macky Sall am na ci ay nit yi valeur il faut ñu nangu et moom moomu ci la bokk parce que maa ngi leen dégg léegi monsieur le maire yaa ngi junj naan leen bu ñu génnee ci élection yi courant day yokk mais c'est un secret de polichinelle hein. madame, madame information parce que FMI FMI Fonds monétaire international dañu def communiquer. communiqué que gouvernement bi Nous avons ak yi te ne point bi ci

murumi mi day yokk essence ak gasoil day yokk waaye bi nga d'une ne junj moy ko léegi woyofal bi lay et je crois à partir de ce moment pour ngeen ko set lo tambalina ku mënul bawul lu yàqoo et malheureusement buma xolé cette jeunesse buma xolé ñi nga xam sen Nyom ñoo wara war liggéey jeune bu am 20 ans 25 ans nga taxaw nan ko 2050 lay défar Sénégal waaw digënté deux fi ak 2050. mille nu muy def pour dund digënté fi ak 2050. yeen ñi nu ngeen di def bay tek seen jël nu ngeen di def ba yor seen i doom nu ngeen di def ba encadrer seen njabot naka ngeen di def ba mëna yor seen kër mané réew kenn du ko yor ci ay tiaxal et vous avez une occasion rêvée. Le 17 novembre, Inch'Allah, Ferelen nous coalition bi coalition Biga nga fille coalition Biga l'esprit de l'intercoalition Ndukiko véritablement wane ñëpp àndandoo booloo doon benn jël liste sàmm sa kàddu jël ay doomu Médina dugal leen ci liste bi à travers monsieur le maire Bamba Fall à travers Ngone ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci biir Ndakaaru tête de bi di Papo ñu ne bu ngeen bëggee jafe-jafe yi askan wi jànkonteel bu ngeen bëggee cuune yi ñu jëlee leen fi bu ngeen bëggee dakkatu juuti yi nga xam ne mënuñu te bawuñu bu ngeen bëggee ñu jëlee leen fi le 17 novembre il faut voter la coalition Sam Sa il faut voter massivement pour une large victoire de l'opposition et de la coalition Sam Sa ici à Dakar et nag yéen Medina, Médina da ngeen ci am cër fu waa medina féete fa la waa Dakar yuy féete fu waa Médina féete fa Sénégal di jox bopp kon yéen waa Médina am nañu yaakaar ci yéen et taxawaay bi nga xam ne gis naa ko ci ndaje mii tax na suma xel dal ma bëgg rek imam bu jëlee kan bu ngeen di xutba barki démb bi ma jëlee parole bi ñu ma libéré su may wax ci mbiri kaso dama ciy wax ndànk parce que sama grand frère moo ma gën a miin kaso mais monsieur le ministre l'a rappelé dama am gëm-gëm bu dee ne ma dem kaso bu Kédougou def fa ay at pour que yéen seen dund baax wallahi alazim ma parce li ma gëm mooy liy defar Sénégal suñu borom mën na ko jaarale ci suñu loxo ñun ñi et li ñu bëgg mooy cuune yii fi ne mooy tanduskat yii fi mooy tappalekat yii fi ne ñoom ñoo ne ñoon doon tappale man waxuma dégg naa keroog kenn naan wuy bugaan bugaan day sonko sonkulu ma ne ko auzu billahi ma ne ko sonko sonkulu mooy fen rek sonko sonkulu mooy tappale sonko sonkulu mooy dóor marto sonko sonkolu mooy rey xale yi mais sonko sonkolu mooy dàmpulu kon bu ma kenn wax ne da ngay sonko sonkolu a'uuzu billahi mina sheytaani bu ma ci bu ma ko kenn waxati li ma bëgg ngeen bàyyi ko xel wax naa ko ko bërki démb imaam ci xubba yi ma ne ko élection yi fi passé dafa doon wër di wax ne réew mi dañu fee bëgg a dooleel góor jigéen yi waaye comme boo woon xeexu góor jigéen yi mais boobaak léegi waxatul ci góor jigéen yi ma ne ko nag doom ndey il faut nga wax ci góor jigéen kaa yi kaa bi bëgg ñu toj ko te kaa bi mooy góor jigéen yi lu tax Sonko nangootul wax ci góor jigéen mais parce que ponkali góor jigéen yi ci àdduna yépp bi falaw ci rewmi mi ñew ñëw ci ko dañoo ñew ndey dikki ko alors ma bëgg yeen ngeen xam ñun taxaw nañu pour xeex lepp luy góor jigéen ci Sénégal et buñu démé assemblée nationale waxna ko ko je lui ai lancé un défi monsieur le ministre j'ai dit à Sonko

maasoo wuñu ak góor jigéen maasoo wuñu ak góor jigéen dendadoo wuñu ak góor jigéen xeex góor jigéen sàmm sa kàddu day xeex góor jigéen moom Sonko bu bëggee toléré góor jigéen nañu jëflante ak moom. et bu boobaa moom bu boobaa ah tey mu neex bu boobaa ma bu boobaa. maa dit remercier bu di encore une fois que l'objectif c'est la victoire de l'opposition la victoire de la coalition Sam Sa la victoire de l'intercoalition mais surtout Yenoua Medina, Médina da défi moi je ba sen maire bi maire bu nga bëgg na maire bi nga maire bi ñu fal ko assemblée nationale vive le Sénégal vive l'intercoalition vive vive